soxna soosu di Fambaye soxna soosu di Fambaye nga xamante ne na fi feebar ba suñu borom jël ko ñu bëri ci senegal euh, di commentaire rek ne euh, sénégalais nañuy dimbali nit fi nga xamante ne foofu la ko soxlawee moo gën ñuy bàyyi ba mu génn àdduna. waaw loolu moom loolu moom dëgg la mm-hmm. ndax nit ki soxla dara. jàppalewoo ko ca nga bàyyi ba mu dee nga saraxal ko dugg na fii génn na fii def ay yooyu ay ay puukare la rekk ay puukare la rek puukare rek la nit daal buy dund loo man ci moom defal su deewee loo man ci ñaan defal suy dund loo man ci moom defal muy xeetu saraxa xeetu ñaan su deewee loo man ci moom defal looy def ñaan mais nit kiy dund defoo ci moom mu dee defoo ci moom nga bëgg mu dee nga def ci moom te bi muy dund defoo ci moom nit koo xam ne am naa benn wóllëre daf ko daan wax da wax ne bu muy dund kenn jaraluma kenn dara su ma deewee ku def ci man baaluma la su ma deewee ku def ci man baaluma ndax am solo la nit bu di dund sonnal ci moom rek su dee jeex na gis nga bu fekkee ni day dund nga def ci moom mu dee nga damay def ci moom kenn du la ko tere su fekkee ni di dund defoo ci moom dara mu dee nga bëgg a def ci moom dara kenn du la faale nit dafay bàyyi xel boppam bàyyi xel mbokkam xamoo danaa koy wax ci euh, émission grand cœur bi ñu fi indi seen mbokk mais neexu leen neexu leen mais dañ koy dañ koy dañ koy def parce que amuñu fu ñu jëm amuñu fu ñu jëm mais neexu leen ndax wane la ci télé bi nga ne fàng ah ñépp di la gis mais loolu da loolu doxul mais nag naka mu mbokk yi te kat koo gis ñu indi ko ci télé bi wallaahi am na mbokk ma am <laughs> mbokk moo ma nag xam nga kañ lay yëngatu bis bu dee sol ay basin am su dugg otom bu rafet ñoo toog ci kër gi ne ana ceeb bi wàcce leen fii nag yu wàcce leen fii nangam wàcce leen fii su dee man nag may doomi paa bi wala may doomu meer su ma bàyyee ba ngeen wàcce ba jekk ma ne safaatal ba mu jekk ànd ak moom <laughs> caqaj safaatal ba mu jekk caqaj nga ànd ak moom lii ki dee du ko lekk ki dee du ci lekk ñiy dund di ñëw ci dëj bi ñoo koy lekk luy seen yoon sa faatal li nga fi indi yóbbu ko ca xaj parce caaxaan baaxul ti fooy nit itam baaxul doxul nit bu fekkee danga koy dimbale daal bu mu bu feebaree jógal ci yaram loo ca man def ko ca su wéree alhamdulillah su wérul alhamdulillah ñu xam ne def nga li nga war li tax ki moom dëgg moo leen mayul dara parce que dañ ko roccee ko bàyyi ko suñu àndoon ak moom nag gis nga yonent bi kenn kenn moomu ko mm-hmm. sallallahu alayhi wa kenn moomu ko ba di ci sañ lii sa moroom du ci sañ lee wala ma sañ salee kii du ci sañ li déedéet moo tax ku ne sañ nga wax ci Muhammad sallallahu alayhi wa mais à part à bi bu la neexee suma maam la bu ko tudd tuddati du ma ko tuddati ah, yaa moom sa maam sama maam la bu ko tuddati duma ko tuddati waaye yonent bi ñépp sañ nañ koo tudd su ko su ko métti woon day dem ci yàlla ne ko yaa ma yónni ci nit ñi léegi dindil décret bi bi nga ma yónnee ci nit ñi yàlla dindi ko waaye yàlla moo ko joxoñ jëme ko ci nit ñi nit ñi nangu ko ku mu neex Muhammad tey sa profet ku mu naqadi mooy sa profet mënoo fexe ba ñee jeexal nañu kii du aye ki aye nag mais moo aye su dee nag sa maam la yaa ko moom ñel bàyyil ma sama maam bàyyil sama baay bàyyil sama nejaay bàyyil sama nangam waaye bàyyil yonent bi kenn ñemu ko wax nit xanaa xanaa nga tudd ko tuddin bu jaarul yoon su boobaa ñu ne la bàyyi ko comme ki ko fi defoon ci sunu réew xamuñu ndey yonent bi xamuñu bàyyi yonent bi kuy ndey yonent bi kuy bàyyi yonent bi ndeyam gënul sama ndey bàyyam gënul sama baay loolu waxi xale la c'est faux waxi xale la boo ko waxee ci réew mu toll nii wax ko ci ko toll ni Muhammad dañuy xam ne waxi xale nga wax Aminatu moo jur Abdallah moo jur Muhammad moo jur Muhammad Aminatu moo jur Muhammad Abdallah moo jur Muhammad moom lañ doon màggal barki démb ak juddoo Sénégal partout adduna bi partout ñëpp ko ñëpp ko màggal kooku mooy Muhammad soo bëggee xam ki ko jur nag nga xool Abdoulaye xool Aminatu nga xam ne ñii duñ sa moromu ndey nekkuñu ko nekkuñu ko yenent bi daal nañ ko teg fële ku man jël ci moom ay référence nga jël ko ku manula jël ci moom référence nga bàyyi ko tout tranquillement nga bàyyi ko parce que ay tappaleeg ay wax ju neex ak ay neexal nit mais yooyu doxuñu ci doxuñu ci dañuy dox ci dëggu yàlla dox ci moomeelu yàlla mais ci loolu la noo dox mais bu ñu jëlee par exemple di dox ci yenn yi mais yàlla sax daf ñuy bañ daf ñuy jéppi kon gàmm gi neex na ñëpp gàmm nañu ñëpp ziar nañu alhamdulillahi rabbil alamin ku gàmmul nag yaa xam waaye daal gàmm nañu ñun gàmm gi tegee na ci yoon tege tegee na ci yoon amul lenn amul lenn amul kenn ku ñuy xool bët di sëgg dañuy xool rek siggi man ne naa la dama leen wax ne ginaaru kenn nenu ma loolu dafay leer ginaaru yàlla moo ma nen ti man yàlla lay waxal yonent bi laay waxal fale yam fala yam kon guddi gi nga xam ne ndax Maodo nee na ñii dañoo wax ne bëccëg la judd ñii wax ne guddi la judd Maodo ne booleel guddi gi ak bëccëg bi neel fajar la commencé matu bi mu leeree la am doom ci guddi la commencé ci fajar la am doom bu ko defee nag nga nga dëggal ñaari boroom xam-xam yi mm-hmm. ndax boroom xam-xam kenn du ko toroxal dañ koo dëggal mm-hmm. lii la Maodo wax mm-hmm. waaye ala kulli xaalin judd na guddeeg judd na bëccëg ak judd na heure yépp am na solo waaye li ko ëpp solo fi